asalaamaaleykum euh, waa Diourbel asalaamaaleykum waa Sen Zoom TV nuyu nañ leen bu baax tey nag ñoo ngi fii euh, ci rue euh, Ndiobentaye ñëw ci boutique bi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi boutique bi nga xam ne moo wàccee coono képp koo xam ne da doon tukki di dem di ñëw wala boo amee xew bëgg a paas ay kilomètres kilomètres ngir dem uti li nga xam ne loole nga nar a sañsee ci sa bés maam Cheikh daal di ne wàcceel naa leen coono boobu yëpp. naka la def dem Dubai dem Chine dem Angleterre dem Canada andil leen marchandise boo xamante ne nii kenn mësu ko fee gis fenn rek nga koy gis muy dëkk yooyu ma tudd maam Cheikh ni leen bàyyi leen ma dem andil leen ko ndax man Diourbel rek laa am te mooy sama dëkk moom ngoom et frère ko nag ak ay rakkam ak ay magam waaye ànd ci ak waajuram bu góor boobu nga xamante ne nii tey jii liñ naan euh, euh, euh, xale su loxom setee dina mën a bokk ki mag te nag butéel bu nekk la mu def rek loolu lay saañ bay xeeñ maam Cheikh daa ñëw defal leen lu am solo lii gis ngeen ko léegi nii ma leen ko wanee ci boutique bi maa ngi nii gis nga ma sama dàll yaa ngi nii tey lan ngay wuteeti Europe kenn matul France kenn matul Canada Espagne Amérique États-Unis dans le monde entier lépp lu ngeen fay uti bu ngeen ñëwee ci boutique bii nga xamante ne moom mooy Ngom et Frères te maam Cheikh euh, nekk fii comme gérante mi ngi nii daal yaa ngi nii pochette yaa ngi nii sac yaa ngi nii accessoire yaa ngi fii grande dame disquette yi lépp mu ngi fi soo ñëwee da nga koy daal di am boo réception wala nga am tour de famille lépp mu ngi fi suñ lay ngénte nag waxatuma ko lépp loo xam ne sa tudd tàmbalee ko ca tudd ma ba ca ngoon ga juróomi solu yoo solu maam Cheikh am na juróomi sañse sañse bu na nag dafa am temps heure bu ne ak la cay xew bu dee dafa tàng am na moment bu dee dafa sedd aussi am na moment boo xamante ne sañse pour le moma euh, fraîcheur la alors que maam Cheikh euh, man daf maa jaaxal dama ne ko l'homme infatigable la. Euh, yëpp ba mu daj kenn dematul fenn. ngir yow sa jëmm ji nga nekk ndaw nekk ndaw lu gëm boppam mënoon a dem ci mbëkk mi toog ci sa dëkk tekk ci sa dëkk inspiré ci sa dëkk ah am sa esprit de créativité def lu mel ni maam Cheikh euh, bon initiative nga am ba def lii ak euh, kan moo la dooleel ba nga toll fii nga toll parce que tam ndaw nga mais dëkk bi ñëpp dañ laa bàyyi xel bu baax a baax a baax macha allah. asalaamaaleykum ñu ngi leen di seen zoom di leen euh, sant bu baax a baax di remercier ci acte bu naaj bi ngeen def waaw kontaan nañ ci torop euh, di sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu yaay mu yàgg fi lool te wér di sant suñu tonton bi nga xamante ni moo ñu yëkkati tamit teg ñu fii nii euh, wóoluñu yëkkati lii lépp jox ñu ko di ko sant di ko ñaanal jàmm ju sax sutura bu law dund bu ànd ak tawfeex di remercier tamit suñu client yëpp yi nga xamante ni heure fu ñu jógee fii la ñuy ñëw. lu mënti am fi leen koy jëndee di kontaan ci ñoom di leen euh, ñaanal jàmm ju sax sutura bu law aussi tamit euh, di wax tamit euh, daanaka li nga wax rek lépp li nga xamante ni moom nga bëgg ci takkaay daal lépp ci wàll xew lépp loo bëgg rek lépp rek dañ koy jaay su nga ñëwee fii nii di leen xoolal takkaay ba nga xamante ni xew na ci jamono takkaay bu sàjj bu ànd ak jamono maanaam incha allah am na fi waaw di ñaanal ñëpp nag jàmm. ci bisu 8 mars bii nii Sénégal am jàmm am salaam bañ delluwaat ñu ñëpp suñu activité yàlla nañu ko yàlla defal waaw kontaan nañ trop di leen remercier aussi yow tamit ah vraiment acte bi nice na madame Diop ñu ngi am contentement bu rëy di ñaan télé bi tamit yàlla séntu ko fu gën a kawe bañ koy dégg fu nekk ci Sénégal incha allah ok merci beaucoup. voilà euh, maam euh, bii ma takk nu mu tudd. bii mooy Daba Ndiaye bi. Daba Ndiaye moom ku nekk xam na ko ku ko déggut aussi xam na ko instant bi mooy lëmbe dëkk bi incha allah waaw mën nga koo soo defee sa grand boubou mën nga koo sol boo defee sa taille mën nga koo sol aussi. xam nga man lan moo ma neex nag mbokku téléspectateur yi ci maam maam Cheikh euh, liñ naan euh, l'heure est euh, ci lay dox xam nga bu ñu nee Kazu Rajab fii Diourbel dañu naan soxna Daba Fallilu moom Serigne fàll mi nga xamante ne moo ni woon Serigne Touba bàyyam bu tëdd boobu. ñoo bokk ndey waaye maa la gën bàyyi mu ne ko lu tax mu ne ko Mamour Anta Sali mooy sa waajur te yow Seexul Xaddim yaay sama waajur ma ne ko dëgg la soxna aw Bousso moo la moo ma jox maam Diakha Bousso moo la jox ma ne ko indi Serigne Fallou nga ñëw ci bés boo xam ne ñu ngi koy waajal di Kazu Rajab ñu jëm ci léegi rek yàggatul nga ñëw daal di indi accessoire yi wàcce ko ci Jurbel tuddee ko soxna Daba mu Serigne Fallou xanaa loolu tey boutique bi ma fàttali leen ni waa kër Serigne Fallou Mbacké lañ ko tuddee eh, Ngom et waaw comme ni nga ko waxee rek euh, waa kër Serigne Fallou Mbacké moom moom lañ tudde boutique bi waaw parce que tamit suñu tonton moom dafa nekk nga xamante ni wasila Serigne Fallou la dafa bëgg Serigne Fallou Serigne Fallou lay dundee moo nekk ci xol bi waaw di li ma waxoon laa di am contentement wu rëy rëy parce que man dama mënewut a wax daal. dafa mel ni xol daal sedd nag waaw. ma kontaan yàlla na yàlla def jàmm daal incha allah voilà merci beaucoup waa régie xanaa bég ngeen ñu ngi woon en direct euh, ci seen Zoom TV fas yéene leen a amal rek toppal leen li nga xam ne moom mooy journée mondiale de la femme ñu sargal jigéen ñi nee naa ñu sargal suñu yaay yi ndax yaay dafa sonn ëmb juróom-ñeenti weer euh, boor ñetti at euh, doom ji màgg dalaa war a noppal mais waxtu tuur say rongoñ ñu gën a sensibiliser waat askan wi sensibiliser les jeunes de la population sénégalaise ñu ànd ak dal te xam ne ah, dëkk bi suñu dëkk la réew mi suñu réew la ñoo ko moom ñoo ko bokk te ñun rek ñoo ko mën a liggéey Sénégal jëm ca kanam yéen sa son les futurs de deme muy ndaw ñi euh, ñu ñaan leen rek ngeen delluwaat ca bërëbu liggéeykaay ya ñu war a jàngi delluwaat ca daare yi kawe ya tout tànk yi itam ubbiwaat école yi ñu daal di duggaat ci école yi daal di jàngi ndax njàng rek moo yorum réew liggéey moo yorum réew euh, ni ko maam Cheikh waxee Ngom et frère yaakaar naa initiative bu am solo la lii am na solo mbokk yi merci beaucoup waa régie merci caméraman bi ma àndaloon ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu ca duwaanu technique ba yëpp ci jàppandal gi ba mu mun a yànji yëpp ñu ngi leen di remercier Alassane Diallo ak Bara Sène euh, le PDG de la Senzuma TV merci beaucoup à tout le monde à tout à l'heure